réew mii ñu nekk nag ñun ñëpp ñoo ko bokk muy réew moo xam ne jumhuriya la muy ab maanaam pays républicain la li fi nekk ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye kenn ku nekk nag am nga droit beru ji ak sa ñoñ seet la la arrangé ci liggéey nga man ko yaag sa ñoñ ngeen di ko liggéey na ngeen di jaamoo yàlla muy lislaam muy leneen am nga droit jonjoo ko muy ay charte yoo xam ne ñu ko tënk ci charte réew mi cant giñ ciy njëkk a def nag te di leen ko seeral ci kanamu ku baax ki Cheikh Abdou mooy kii nga xam ne moom lañ fal barki démb ñun ñëpp tiitoon nañ ci du ma ne rek Sénégal tiitoon ñëpp ci tiitoon waaye suñu borom dimbali nañu baaxee nañu ba jàmm ca njëkk moo ci mujj loola nag dañuy fàttali waxi Cheikh Abdoulaye Mbacké radiyallahu anhu nee woon nag Sénégal moom jàmm fii am aw ay du fi juddoo te ko yanoo saw ay bitim réew soo ko fii indi balaa ñëw mu këpp ci sa kaw ba mu koy wax booba yaakaar na situation bi ñu àgg ci jafe-jafe politique amu fi woon waaye bis bu set waxi doomi Sëriñ Tuubaa day feddaliku ni jant di penk fi fenke penku jëm sow kenn mënu ko dara moom mii na nga xam ne moo fi toog alhamdulilah rabbil alamina am nañ ak am nañ amal nañ ko ak cant liñ ko war a sant mooy noonu ñi nga xam ne ñun ay baykat lañ di doomi baykat dañoo fekk si ci ak baykat di doomi baykat xam na naaj xam na déeg xam na yoonu sori xam na guddee reer xam na naajee añ xam na lépp kooku bu yoree am réew da dul yem ak koo xam ne xamul ci yooya dara bi ki des suñu borom dimbali ko ba niñ gisee mu niy doxee li ñu itteel noonu mi ngi ci ndax bu nee daara népp sëriñ ne doomi daara ne alxuraan loolu comme doyul ci xel mu dal gisuma luy maanaam lan mën a lu mën a dalal sama xel te loolu dégg nañ ko ci ay discours bu yàggul rek yaakaar naa discours bu tey bii rek dana ko yóbbaale kon nag ki ñëw ne la sëriñ bi laa soxla te yow ngay mbokkum sëriñ bi wala ngay taalibeem sëriñ bi nga ne ko looy doy sëriñ bi mu ne damaa bëgg bu ma ko gisee ma jàppale leen yéen ñi sës ci moom yaakaar naa doog ko xañ kon tàmbali naa doxe noonu doxin woo xam ne lu ñu rafet njort la kon nag moom itam ñu ngi koy sant ci lenn mooy na xam ne feeg mu ngi toppatoo lislaam di ñu jàppaleel sunu sëriñ sii alxuraan ju ñu amul lu dul moom mu dimbali ñu ca yokk ñu ay ndimbal bañ mën a jekk suñu bopp di jàng ak jàngalee ko yar tàllal nañ ko loxo danañ ko tàllal loxo it di ko di tàllaleel ñëpp di tàllaleel ñëpp loxo loola nag ak cant la goo xam ne moom itam ëmbal nañ ko ko